Cheikh Issa Diène Cheikh Issa Diène Cheikh Issa Diène ku sopp maam Cheikh Issa Diène defal ni ñu màggal bàyyi Baara Diène maam yi Serigne Souhaïbou Diène ku weddi lii demal la gan Cheikh Issa Diène ay mbër te moo yaaram la woote naag sa gan Bamba ko ñàkke xarnu bi Cheikh Issa Diène Bamba ni woon maam Cheikh Issa Diène demal Diène ma fekk la faag la gën Cheikh Issa dem la gan xéewal baawaan jaaraama jaajëf sëñ Cheikh Mbaye sa jëf ju na neex na sa bàyyi te neex na Cheikh Bamba neex Cheikh Issa ak sëñ Baara jenn bàyyi sa bàyyi xam ngeen ni asgora ngi jàmbaara ngi sëriñ Cheikh jennooy borom jenneeg lagan ah bëy yooyu dañ ko doon barkeelu rek léegi nag ñu maase teewlu ñu yokk kàddu gi sëriñ Cheikh jenn na ñëpp teewlu bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. yéen mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziar day tellu rek day jéggulu di tuub ci jotaay bu yàgg bi waaye buñ ci delloo rek ci ginnaaw jotaay bi ku ci nekk rek dala ko jaral ndax ku ci nekk gox yin jóge sore na lool kon ñu ngi leen ci sant bu baax waaye di jiital sunu nuyoo rek ci alxalifatul am di ko ziar di ko ñaanal muy sëriñ Muntaxa Mbàkke suñu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye di ci teg sëriñ Abdou Latif Jenn mi nga xam ni moo fi nekkal maam Cheikh saa Jenn ak mboolem njabootug maam Cheikh saa Jenn gépp waaye di ko defal noonu rek njabootug sëriñ Balla Faali Jeng gi nga xam ni ñoom it ñu ngi ñëwoon ànd ak ñun bis bi ci jiit la muy sëriñ Mourtada Dieng ñu taftal ca sëriñ Saliou Dieng ak euh, sëriñ Abdou Lahat ñoom ñëpp ñoo jiite woon délégation bi nga xam ne ñoo jógee foofu ñu leen di sant bu baax tey rafetlu seenub taxawaay ndax it euh, bi yàlla defee ñu jël bis bi dara jaale ko sëriñ Balla Faali Dieng yàlla def na ñoom ñu jël ko def ko comme ñun niñ def bis bi sonn ci lool taxawu ko lool def mobilisation bu mag ñëw ànd ak ñun bis bi kon euh, ci njiitu sëriñ Saalih rek la ñu teg nuyoo bi mu jot leen ñu ko xalif bi muy sëriñ Mourtala ñu ngi leen di jëfal bu baax waaye di dellu rek euh, di jaajëfal mboolem kilifa yi nga xam ni teew nañ fii ci jataay bi ndax euh, sëriñ Sidinaar jenn mi ngi noonu génn léegi ji teewoon si jotaay bi waaye ñu feggoog sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Modou Faty Khary moom it mi ngi nii yàgg naa ñu ànd ak ñu jotaay bi waaye tey jii yeesalaat na ko waaye di sant rek sëriñ soy bu jenn jaara moom ca suba ba léegi mi ngi fii ànd ak ñun jotaay bi feggoog sëriñ maam góor jenn moom sëriñ Mbacke jenn waaye di sant sëriñ Sidi jenn mi nga xam ne mooy suñ kilifa ci waa kër sëriñ soy bu jenn moom Cheikh Mohamed Lamine Baare Jenn ak mboolem ay rakkam ndax ñi ngi jàkkaaroog sëriñ Naar sëriñ Basiiru sëriñ Abdou Kebe Jenn ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ak ñun donte xam na ni xat na lool ndax euh, démb sax ñi ngi yenn ci ak ngadoog sëriñ Naar ci Touba waaye teew dañoo topp guddi gi ñëw ànd ak ñun bis bi ndax wan ni ñun ñoo bokk bis bi te di sant euh, ba tey rek euh, ci mboolem délégation yi nga xam ni teew nañ fii ci mboolem autorité yi ndax euh, di ci jiital rek monsieur le président Macky sàll ndax euh, moom it yabal na fi délégation bu yaatu lool euh, ci njiitul Serigne Makhtar jenn moom it fan yi yëpp mu ngi ànd ak ñun liggéey bi fu ñu toll mi ngi ànd ak ñun ci otoom di génn fu ñu toll ñu ngi toog di waxtaan ba ci appel yi nga xam ne ñi ngi ko doon def yëpp mi ngi ci ànd ak ñun ñëpp gis nañ ko jenn ñi ngi koy dellu di jëfal bu baax a baax waaye di sant mboolem daayira yi nga xam ni ñoom tamit teew nañ fi di ci jiital fédération Maam Cheikh Issa jenn bi nekk Italie mboole ko mu ëmb mboolem daayira yépp ci njiitu Serigne Taalaka waaye ci mboolem soxna yi nga xam ni ñoom it ñu ngi féete fii ci dëkk bi ti Ndakaaru ñu jiital ci soxna Bintu jenn ak soxna Ngéye Diène ak soxna Mbène jenn moom Cheikh Mouhamed Lamine Baara ak soxna Seynabou Diène moom Cheikh Mouhamed lemin Baara ñoom ñëpp it teew nañ fii si jotaay bi waaye di sant délégation bi nga xam ni moo jóge ci kuréelu Hizbut Tarqiyyah sëriñ Youssou Diop moom it yónnee na fi kuréel gu takku wax dëgg yàlla ñoo ubbi jataay bi ci wàllum njàngu xasida yi kon ñu ngi leen di dellu tamit ñoom ñëpp di leen jaajëfal waaye di sant euh, Pape Mamadou Fall dégg naa directeur emploi dégg naa sëñ Mbàkke moom it di ko jot léegi ci taxawaayam ndax it moom it biñ demee ci moom waxtaan ci ak moom mu am ci xel mu rafet dolli ñu ko waxtaan ak ñun takku ni fas naa yéene chaque année dinaa ànd ak yéen liggéey bi ci sama doole ak sama xel ak sama alal kon ñi ngi koy dellu di jaajëfal ndax soxna May jenn moom sëñ Abdou Salaam mii soxna am teew na fi ànd ak délégation bu mag waaye di sant euh, soxna Sophie Camara adjoint maire Parcelles moom it euh, def na délégation bu mag ànd ak euh, sëriñ malik Diallo ñëw teew fii ci jotaay bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ñoom it euh, depuis bañ tàmbalee réunion yi ba léegi soxna Sophie mi ngi ànd ak ñun liggéey bi kon soxna Sophie ñu ngi lay dellu yow it euh, nuyoo de di la delloo yóbbante ca monsieur le maire bu parcelle ne ko addi yañ jim fi yónnee yëpp jot nañ ci yow it ñu ngi lay dellu jëfal ci taxawaay bi waaye di sant tamit délégation bi nga xam ni moo jógee ci soxna Mimi Touré de Alhaji Malick jàlloo moom it jiite ko wax dëgg yàlla euh, muy délégation ba am solo ndax euh, soxna mi mi moom yàlla daa def muy doom ci kër gi ndax ku ne xam na digganteem ak sëriñ bi wax na ni sax moom moo fi bëggoon a teewal boppam waaye yàlla def mu xaw a sori nekk ba booli siin lañ wax xaw ma ékeren kon kook sori na waaye teewut teewut def na délégation bu mag bu am solo ñëw teew fii kon euh, alaaji Malick nga delloo ñu soxna si ab nuyoo ak cant nee ko taxawaay bi mat na sëkk ñu ngi lay dellu di jëfal waaye di sant temit tamit euh, monsieur lay ñaan waaw directeur banque BNT moom it yónnee na fi délégation bu mag ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ci taxawaay bi waaye monsieur moor Aaj directeur Transvie non directeur Sénat assurance moom it euh, teew na fi fi la yendu ànd ak ñun liggéey bi ak jàpp ndalam ak taxawaayam ci livre yi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ba mu toll fii ànd ci ak euh, monsieur mbay Gueye EMC moom it doomam boo leen ko xoolee sax euh, mi ngi ànd liggéey bi ci suba ba léegi ànd ak ñun liggéey bi kon euh, mbay ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaye di sant tamit Abdou Diagne Transvie moom it yàlla def na moom lépp loo xam si dafa jëm ci wàllu am ndox da ko fi yónnee waaye li jëm ci wàllu kër docteur tamit da leen fay yónnee pour nit ñi mën faa jaar sax di xool seen yaram de. duñ ci laaj kenn dara buñ paree jox leen i garab ba noppi jël addiya ju am solo liggéey ko ci livre bi kon monsieur Abdou Diagne Transvi ñu ngi lay delloo ziar bu baax di la jaajëfal waaye di sant di gërëm monsieur directeur aadama Diallo directeur Petersen ñu ngi koy sant bu baax ndax moom it ginnaaw bi ñu sëriñ bi yabalee ci moom biñ demee dalal nañu accueillir nañu toppatoo nañu ba noppit am taxawaay bu yaatu ci bis bi waaye tamit loolu dañ koy sant monsieur le maire Thilass kuy di maireu Ndiéné moom it boobu taxawaay la ci am chaque jour mi ngi woote di laaj liggéey bi fi mu toll ànd ceeg ñun ba noppi taxawu ca ñi nga xam ne ñoo féete ci dëkkam muy Ndiéné lagan kon monsieur Thilass ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaar di la jaajëfal waaye jaarle ko ci madame le maire soxna Ndeye Seye mi nga xam ni moom nga ànd ak liggéey bi moom it fu toll rek ñi ngi mi ngi waxtaan ak ñun waaye di sant monsieur Wagan Sène moom it ñi ngi koy sant bu baax ndax it yónnee na fi ay xéwal yu yaatu ànd ak ñun liggéey bi taxaw ko bu rafet ba noppi ñëw teewal fi boppam kon ñi ngi nuyu mboole mbokk yëpp di jaajëfal nag waa jamhiyatu tawdih wa nasri li injazati maam Cheikh Issa Diène bi nga xam ni mooy kuréel gi nga xam ni moom mooy taxawal bis bi ci liggéey bu rafet waaye comme waxtu yi dafa xaw a te sëñ Mbàkke moom fi ne du maye dara euh, ci mboolem bànqaas yépp rek gis nañ ko taxawaay bi rafet na waa organisation waa communication ñi yore wàll waañu wi ñëpp rek bàyyiwun kenn wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi leen di sant ñëpp di leen di jaajëfal tey ñaan suñ borom boroom ñu ci ci déwén nag jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakto tey jégalu rek nag ndax dama jàkkaaroog sama sëriñ sëriñ Abdou Lahat Mbacke mu soxna Oumy Dieng ci Daaru Salaam maa ngi ci jéeglu baax sëriñ bi ca suba ba léegi moom bokk na ci ñi njëkk ci saal bi maa ngi jéeg lu baax sëriñ bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax si jotaay bi baax na Mbàkke jërëjëf jërë ngeen jëf te El Hadji ndaw Ndaw man ak mbooleem ñi génnee daaray Koki ñooy am mbégte di leen yëgal ak di sàkku seen teewaay ci xew wi jëm ci lancement officiel projet bi ñu duppee Wajaahidu dañoo benn sas junni million la daara Koki soxla benn fan ci weeru avril 2023 lay doon ca Grand Théâtre National bu Ndakaaru